Euh, Maître Ousseinou Mbouch, je suis usé de justice à Thiès. J'occupe la charge 3 de Thiès. Mon cabinet se trouve au quartier Escale Sud, au 333 rue rue de Marseille. Je suis leen sant parce que ñun si euh, ndaw yi nga xamante ni ñoom ñooy si daara yi di si sàkku ay xam-xam yu jëm si seen wall ëllëg suñu demee si kër liggéeykaay ndaw yi nag si seen tatan, namm nañu xam. nan nañ ñi def ba dabu seeni bor su fekkee ñoo ngi liggéey ci yenn kër liggéeykaay naka nañ mun a daboo ay bor yoon nag dafa am nu mu tëralee noo xamante ne noonu lañ mun a daboo ay bor doo tëb rek poñe nit ki doo tëb rek teg yi yenn fitna yi faaw nga jaarale ko ci yoon pour nga dabu yow bor bi ñu la amee su fekkee nag sa bor bi nga amee la amee wér na xam nga ñaata la xam nga ni mat na sëkk foofu lay gën a yomb daboo mais am na ñoo xamante ni nag ñoom suñu sañoon duñu teel a dabu seen bor ndax bëgguñu yàq diggante pour ñoom suñu demee jëflanteeg nit nitu yoon wala yóbbu nit ki si yoon pour dabu bor yàq na digganteem léegi nag nit ki mooy xool nag lan moo ko gënal est-ce que sàmm diggante dina tax ba du dabu borom te pourtant si suñu suñu askan ñoo ngi wax daal ni laa daraara wala daraara maanaam bu loru te bul lore su fekkee ku la yoree nag daf la nar a lor sa bopp mu la fexe ba gënal la du teggi ni bañ na la. atte boor fay. atte boor fay loolu la Wolof wax mais yenn saay ki la war a fay tam tool diggante yenn saay itam su toolee diggante war nga ko mun a fexe ba xam ne kii diggante la tool nangul ko yenn yi mais si kaw mu wane ne ni moom am na sabab ak yéeg ak mébét pour fay la bor bi am ñoo xam nag dañuy lànk ndaare ne ñoom duñu fay su boobaa nag dañuy obligé fëgg buntu yoon pour yoon topp leen doo yoon dafa tere ku fajal boppam faaw nga jox ko nag si ñoo xamante ni seen liggéey mooy jëflante si wàllu yoon pour dabul labor boobu si anam bu gën a sellee mais si anam bu gën a gaawee. est ce que dina gaaw justement boo jaaree si yoon. yenn saa ñàkk xam mooy war a tax mu yéex yenn saa itam am na ñoo xam dañ leen amel te duñu sàgg duñu fàggandiku ba fexe ba kooku indi luy firndeel ni yoreel na leen bu njëkk ba dañ naan kàddu rek doyoon na pour tënk ay bor mais jamono ji il faut que nga mun a am loo ko firndeel pour nga mun a am ay lu la yombalal pour nga dabu sa bor ci wàll bob bin dina doy seede tamit soxla nañ ko ci yenn say mais li am solo moy ki nga séqal am mébétu fay la bor bi. mu naam jamono tax ba mu jekkul ni mais xëy du jamono doxé touti mu am mu jek donc yoy da nga ko war a jéem a ko pour jéem waslu ci ak dal fay ko. Euh, docteur Papa Alioune Sow je suis en charge de ce de ces programmes euh, je dis bien ces programmes puisqu'en fait euh, le cycle un des gradués communément appelé parcours licence est composé aujourd'hui à l'état actuel de sa progression de trois programmes, de trois pôles on va dire. Euh, le pôle le plus ancien est le pôle DG qui prépare donc le diplôme supérieur de gestion. On a également un pôle euh, d'informatique appliquée à la gestion des entreprises qui prépare également a une licence en gestion, mais une gestion euh, des entreprises assistée par euh, l'outil informatique, on va dire. Et, le troisième pôle euh, qui est non moins important, c'est le pôle de droit, l'école de droit, qui cette année également a démarré, en est à sa deuxième année, puisqu'en fait nous avons reçu une cohorte d'étudiants de l'État en 2016-2017 c'est cette corte là qui a été donc euh, la Corte qui a démarré donc ce, programme de droit. Alors nous préparons, comme vous le savez, les étudiants à une licence en diplôme, à une licence en droit des affaires, administration en droit des affaires, hein, administration des affaires. Donc c'est un peu euh, brièvement euh, présenté donc ces trois écoles, ces trois cours qui aujourd'hui donc constituent le cycle licence de l'ISM de l'Institut supérieur de management de Thiès tey yaakaar naa comme niveau conférencier On peut le voir, bi waxee umpulewul kenn umpulewul ne ñun ñëpp kenn ku ci ñun du ñàkk tey nga am koo yarel wala ku la yoreel waaye nag ñu li ci ëpp dañuy dem ak suñu suñu xelu bopp tey gis lu ni mel am ku ñëw toog wax ñu nañu bu la nit yorele wala boo yorele nit nangam ak nangam ngay doxale ci yoon wi ngay jaar donc loolu dafa doon loo xam ne ni tey lu lu ñu soxal la lu soxal ñëpp la boole ci nag dañu am étudiant nga xam ne ni tey dañuy jàng lépp lu lu lu aju ci wàllu yoon ku nekk nag di ndaw ñu lay tàggat ci wàllu yoon yoon la tamit ñu won la ay ay ay ay maanaam ay ay firnde ci ca la ngay jàng ndax mu doon loo xam ne ni ëllëg bu ñu génnee ba doon ay ay ay kilifa ci li ñu yëngu ñu mën a xam ñoom fu ñuy teg seen tànk loolu rek sabab ay jotaay bi boo nekkee ci ci mbirum njàngale moom munoo gëm ne lépp mat na waaw ah, damay tooñ xale yi ne leen jàng ku xëy jóge sa kër ne damay jàngi da nga nangu ne xamaguloo donc jàngale comme ni ko tubaab bi waxee c' est une quête perpétuelle de connaissance ko munoo xëy suba ba ngoon ñëw toog école te amul lu des te comme nag jamono aussi dafay dox ñun dañuy dox rek ànd ak moom tey lu jëm ci lu mëna leral sen sen sen yoon lepp lu leen yok yok ci sen sakku xam-xam ñi toll ñun dañ ci dox waye nak du ciage ni ah dañoo soxé ci suñu doxali wala leneen dafa nek rek ne jamono ni toll te fu jamono jamono doxé ba toll fenn fi rafet na yitam nga ànd mom ci ci ci ci tollinam ndax dem ak mom lol rek la moy sol mo mo sabab bisu bi bisu tay bi ni euh, te muy lo xam dana jëriñ ñëpp du yem rek ci étudiants yi ci ndongo yi waye ñu nit dafa doon lo xam ni dinañu jëriñ ndax ni ma ko waxee léegi koy tàmbali euh, déedéet déedéet wuñ ko tay série de conférence mom yag nañu ci loolu machallah dañ koy daan woyé sax ñaare université du management tour bobu lañ ko daan tuddee euh, mën na doon lo xam dañ koy wooyee barab boo xam ne dañ fay dajaloo ngir ñi nga xam ne ñoo jiitu gune yi ndaw ñi ci liggéey ci wàllu professionnel ñu mën a ñëw wax ñoom fa ñu jaar euh, maanaam partagé ko ak suñuy suñuy ndongo ndax ñu mën a ñoom it euh, am luñ ci luñ ci luñ ci jël waaw xam nga nag euh, moom lay wax léegi di wax naan dañoo toll ci jamono yi na na ku ne xam noy na golo bu ne xam noy boté sa sa dom defana da dama koy faral deg jolo fi waye waaye ISM am na tolluwaay boo xam ni xeyna eh, wessuna di génné ay gune di len sanni ci mbedd mi ndax nguur gi yaral na len xaliss dafa am sacerdoce li ñuy wax sacerdoce dañoo eh, manam solo wu njang mi tek ko ci lenen jital ko ci manam lepp luy wutum alal ay rafetoon na xëy na eh, nit ñi xaw a delloo si seen xel tuuti xam ne mbir mi ñoo ko ah, waaye ba fii ma toll nii ah du ma ne et nguur gi yorelu école bi xaalis ne loolu moom mënuma cee wax lu bëri parce que nekkuma ci ci domaine boobu man wàllum pédagogie lay lijjanti mais day suma patron ki nga xam ne mooy kilifa gi ah, musul toog ak ñun ba junj mbiru fayu ñu ñu dañu génne bu ne te nag wax dëgg yàlla xëy na na ñeneen ñi def génn taxaw ci rajo yi wax wala génn gune yi teg leen ci mbedd mi xëy na mënoon na koo def waaye xëy na ci xolam bu rafet ak ci yërmandeem jàpp nañ ne ñoom loolu bu seen cër waaw ñu ngi ci ànd ak dal euh, di continuer di tàggat xale yi. Nous sommes vraiment très honorés de vous recevoir aujourd'hui parmi nous pour animer cette conférence. Les étudiants nous ont exhortés à y assister et peut-être même sans ça, on le ferait avec plaisir parce que c'est des moments de partage intense et je sais que chacun y apprendra quelque chose. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue au nom de l'administration générale, de la direction administrative financière, qui pour des, euh, pour des calendriers chargés n'ont pas pu venir. Je pense que ce sera des moments forts, exaltants de partage. Si je serais un président, je vous jure toutes les personnes qui sont à l'ISM, je vous jure, ils seront à l'honneur. Nous avons un club, un club dénommé ODA, considérant l'intégration de l'économie, considérant aussi le développement et le changement qui existent dans le monde d'aujourd'hui, surtout dans le monde des affaires, nous étudiants de l'ISM, comme on nous a montré, comme on nous a appris comment doit être un grand manager, on a essayé de manager un club dénommé OADA qui va dans l'importance d'accompagner tous les étudiants de l'ISM pour la réussite et pour une bonne formation. C'était ça quoi. Mais après, il y aura beaucoup de choses que le club OADA va organiser chargé de la communication du club OADA. Le club a pour objet principal la vulgarisation du traité de Port-Louis portant création sur le droit OADA, mais aussi la diffusion du droit des affaires, mais aussi permettre aux étudiants, nous aux étudiants, d'avoir une couture générale sur le droit en général, mais en particulier sur le droit des affaires. De ce fait, on a des moyens. On va vous en faire part. Le club va adopter un programme. Chaque quinzaine, le club se chargera d'organiser des ateliers, des séminaires ou des conférences comme celle-ci, durant lesquelles des juristes chevronnés seront invités. Pour contribuer à l'encadrement des étudiants, le club se veut ainsi un creuset d'excellence étudiantine en organisant des concours qui permettront aux étudiants d'évaluer des connaissances et de renforcer la teneur de leur culture juridique. Un concours de génie en droit OADA, un concours de plaidoirie, cours de renforcement et des procès fictifs. À la fin, notre initiative, c'est de mettre en place une bibliothèque. Une bibliothèque qui sera disponible pour les étudiants, les apprentis en droit, pour cette bibliothèque, nous, nous lançons un appel à tous membres, les membres de l'administration, nos chers jurés, euh, à nous aider à avoir des livres euh, pour notre bibliothèque. Je vous remercie.